Ma décision est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. Je vais donner la possibilité à des Ivoiriens plus jeunes de poursuivre l'œuvre de modernisation de notre pays. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique. Je rends ici un hommage à mes prédécesseurs, les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Des jeunes Ivoiriens honnêtes qui ont appris à nos côtés, comme nous l'avons fait, aux côtés du père de la nation le président Félix Houphouët-Boigny. Je resterai à vos côtés, à votre écoute et au service de la République et de la nation. Je voudrais vous rassurer, je resterai disponible pour apporter ma contribution par mes conseils et mes relations. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire. Vive la République et vive le Sénégal. waaw yaakaar naa ko amon nasi. na fi. gars yi sama xel ñaaw na de. gars sama xel ñaaw na sama xel ñaaw na mais non Ibou Ndafa du def loolu quoi Ibou Ndafa du def loolu. man moom gis naa patriote yu bari naan Ibou Ndafa à tout moment mën na changer position man xam ngeen Ibou Ndafa moom moom ay affaire am dafa doy waar mais gëm naa ne Ibou Ndafa du dellu ginaaw ci li mu nekk nii parce que xam ngeen lan moo tax Assane Alassane Ouattara maanaam peuple bi mu ko séqaloon ak peuple bi ko Ibou Ndafa séqal moo bokkul gis nga xam ngeen loolu bu baax Ibou Ndafa li tax mu jël décision bi mu jël nii maanaam génnaat ci lam doon waaj parce que ku xam Ibou Ndafa xam ne wa yàgg naa waaj troisième manda mais li tax li tax mu génn ci mooy peuple bu déterminé wu bi mu loolu xam na ne ba léegi moom moo fi nekk te est xam ngeen benn affaire maanaam tey peuple bi ni ñu doon toogee dégg naa Sa gu mu ne Ibou Ndafa bu génnoon taxaw ne dafay def candidature maanaam day bokk ci élection 2024 yi sénégalais bu ñu xëyee dañuy dem liggéeyi kenn du ko faale dégg naa Sa wax loolu mais est-ce que xam nga ne tey jii bu fekkee sénégalais bu waxoon ne day bokk dañuy toog jàpp seen njàmbur instant bi bu leen nee du ma bokk ba pare xëy suba ne la waan damay bokk même buñ naroon toog seen kër yi dañuy génn est-ce que xam ngeen loolu. maanaam bu den dafa ñëw rek Griezmann ne damay bokk benn yoon gars yi xëy dem liggéey ñiy jàpp seen njàmbur tey conséquence bi mu am bu taxawee ne leen ma ba ñuy def yaakaar mu dem ba si biir ne leen waat damay bokk du bokk maanaam bu doon fukk lañ fukki nit ñoo naroon a génn bee bii téeméeri nit ñooy génn parce que dafa am ñoo xam ne amaana firi woon nañ yaakaaroon nañ ni alhamdulilah comme sa waay bokkul mu xëyaat suba ne leen damay bokk ñooñu même bu ñu toroo naroon toog kër yi dañuy génn. Ibou Ndafa moom maa leen ko wax fii moom Ibou Ndafa li mu wax di ci dellu ginnaaw loolu moom moom moom moom bu soobee yàlla na ci seen xel dal Ibou Ndafa du dellu ginnaaw si li mu wax nii moom kay problème am leneen la mais ibu Ndafa du dellu ginnaaw bu soobee yàlla. aussi tamit lan ngeen si pare monsieur le ministre monsieur le président assemblée nationale député yëpp dañoo kontaan laaj mi lu tax ñu kontaan kenn ku nekk jot nga sa salaire kenn ku nekk jot nga sa indemnité de logement kenn ku nekk jot nga moto député est monsieur le président député assemblée nationale vous êtes vice président commission am nga 300000 am nga logement 200000 am nga carburant 450 000. am nga salaire 1 million am nga transport 900 000. 3 muy millions député bu nekk donc nationale Donc, merci monsieur le président assemblée nationale L'Olou. bëgg naa askan wi xamni askan wi xamni ni député yi fal fi amna ñu xaaliss dañ leen jox xaru tebeski monsieur le ministre amna député yeewi askan bu jigen bu ak député yeewi askan bu wala euh, benn boko yaakar bu goor na leen maye yeewi askan rek boo yaakar yaakaar bëggante na na leen maye fii sal wa salaam alaykum wa rahmatulah jërëjëf <laughs> benen problème bi nak moy ki man man <laughs> maanaam Cheikh Bara Dolly yow yow xama def ni maam euh, Cheikh Bara dool yow waa Touba problème yi ñu am yëpp nga xam ne am na ci ay quartier ay gox yoo xam ne dañoo manqué ndox ba nii may waxee yow amuñu ndox yow ñu ne la yaay seen député yaa leen war a taxawal foofu waxal leen seen i jafe-jafe nga ñëw ba ci foofu min min baru assemblée nationale taxaw fa naan député APR ak député yeewi askan wi dañuy génn quoi mais yow yow yow man man man suñu député yi lan mooy seen problème quoi yow dañ yow bu fofu pour ngay lijeenti ay relation ay couple wala dañ la fa yow pour ngay waxaat askan bi seen jafé jafé man man man da wax deug yalla suñu Sénégal gi tamit dañ ko wara a régler waat dé hein yow ana député taxaw si non bo yeen est ce que yeen ngi seetaan assemblée nationale bu France yeen ngi ko seetaan ngeen di xol député yi bu ñuy tok di wax sa xolal amul ay ki di wax ñe di ko yoxu amul ay ruube kenn ku nek fi nga tok ngay tok correctement wax sa soxla correctement bo paré keneen jël kàddu gi wax mais fi Sénégal ngay gis député bi wax ñu tim ko di yuxu mu taxaw naan député Benno Bokk yaakar ak député Yewwi Askan Wi dañuy genn ah manam Sénégal Sénégal du dem quoi vraiment manam député yi suñu député yi <laughs> ba bi mom lijjanti na ba ay quelques phrases français yo xamné ne nako quoi bind ko ci feuyam ñëw na di ko liir xaw ma ci alxuraan la ko bindee xaw ma nag mais nee na day bokk ci élection yi ndax mën na mën na mën na mën na wax français quoi. Macky Sall la en tant que candidat sotti ak doomu daara mu ni xëy na doomu daara déggul français dégg nañu ko waaye duñ ko soxla wut a wax. aujourd'hui nous sommes revenus par sacrifice une exercice républicain consacré exercice républicain consacré par article 56, le loi règlement numéro 2020-07 le février 2020. Relatif, la loi de finances, vous parlez du débat orientation budget, l'eau y fi indi a ministre bëgg naa xam diggante Kër Samba Kane Touba Toul Mbaba Garage fu mu toll. monsieur le ministre bëgg naa xam Mbaba Garage mbay ak euh, fi nga xamante ne mooy Kër Nganda fan la toll monsieur le ministre bëgg naa xam li nga xamante ni mooy. maanaam moom moom li jënd na ay quelques mots français yu mu téye nee na dina bokk si élection yi ndax mën na wax français man nag man samay affaire bopp man sama jëf bopp propre dinaa si jóg. parce que réew mi affaire dafa commencé yóbbu léegi

Aunque quiera. ay bi xam nga man leen lenn tamit jaaxal na ma si tey dama leen indil ay cas yu bari ah parce que cas yi yëpp dafa bari mënu ma si def benn bu nekk vidéo mais gars yi cas bi euh, waa Benno Bokk Yaakaar maanaam ñoom naka lañ mën a tëwee force de l'ordre yi ñoom ñu def seen barricade barricade pale bi ñoom ñu ñëw bëtt barricade bi jàll waa kon ñun ñun ñoo ñàkk fayda wala waa APR yi ñoo am fulla wala wala les forces de l'ordre yi ñun lañ yëpp quoi parce que yow yéen ngeen def seen barricade waa Benno Bokk Yaakaar ñëw dindi barricade yi jàll dem ba buntu pare taxaw ah réew mi am nag réeroo de am na kumba am ndey ak kumba amul ndey xaw ma nag waa Benno Bokk Yaakaar ñoo am fulla ci li ñuy def xaw ma ñun ñoo ñàkk fulla quoi mais ah, affaire yi de na de te man lu ma gën a jaaxal waa Benno Bokk Yaakaar man ay maire laa fa gis <laughs> maire yoo xam ne dañoo xeesal a xeesal man benn bokk baakaar yaakaar naa amuñu ay jeunes a ah. yéen man gisuma benn jeune ci seen mboolo bi ay maire laa gis te maire yu ma gis ndeysaan yaay booy yéen lii lañ leen bëgga a wàcceel quoi xool leen mille francs deux mille yi leen di jox nii di leen dajale buntu pala lii lañ bëgg mu jeex mais doo leen comprendre parce que jàpp ngeen ne comme Macky moo leen di jox ay trois mille ak cinq mille rek bu fi jigéen dootoo leen baaxle bu fi jigéen ngeen di gën a baax le ndax seen doom yi ca kër ga nga xam ne dañoo jàng ba pare ñu liggéey ñi nga xam dañoo jàng seen métier ba man ko gis ñu leen ne kaay ma liggéey loo leen ñoo ñu tey dinañ leen liggéeyal di leen jox ba dootoo leen talal taxaw ci ay buntu pale ñu leen di jox ay mille francs ki deux mille ñun loolu la ñuy xeex quoi mais maire yi ndeysaan duñ comprendre ñoom jàpp nañ ne bu fi sawaay jógee ñu baax la et pourtant boobu ngeen di gën a baax le maire ñoo far ñu ne yéen ñoo far bàyyi leen ba Sonko ñëw rek dina baax